ma ni ko ci woyati nga de artiste ba yëngaliti na woyati la tojati nga jeebaa daanaan dëgg nga de maanaam fi mu ne nii man li ma neex ci moom li muy woy neex na trop trop trop trop macha allah samay xaali xëy na man dama jàpp ne yow mii am na ko macha nopp mu trompé la wala ba ngay liggéey mu ne sa am na xale boo xam si danga ko noban ragal ko wax jéebaa ba léegi mbëggeel lay woy rek yu neex tamit jéebaa ba léegi loof lay woy yu neex tamit jéebaa ba léegi yaa ngi woy amoureuse yu neex tamit barke yo mal xaama lakk bar yàlla la yàlla lafal cat yoon daanaañ nga yëngal nga démb fi nga doon tëgg macha allah gisee ferme nga ko def wàcce nga ko lëmbal yaa nga ci biir riita mballa yaa nga ci biir waaye amour bii jeebaa dama lay laaj rek jéebaa dama lay laaj rek sa diggante yàlla amul benn xale boo xam si danga koo mas a nopp ndeysaan mu bañ bu fekkante daam koo mas a bëgg mu bañ ba léegi mu ne ci sa xel bi man bëgg faal wax ma barke bi man xaama lakk ba mat naa la bàyyi ci nii ma solo ma dem doxal mais fun la fekk yaa ngi woy laaf yu neex loof yu neex nga mën a laaf sax fun la fekk yaa ngi woy mbëggeel yu neex amour yu neex barke yombal xaamal ak ay béy bii soteem ay loo fii guus ay loo fii duraat des fois lay defal xappi bés di wuyu ba nga foog ne ma ca mu cabaxal ca benn loo <laughs> yaa ngi koy dund nag yàlla na la yàlla lafal cat yàlla na la yàlla musal ci musiba yi balaa yi barke yombal xaamal ak yàlla la cat semal yàlla na la yàlla laq foo xam si yàq du fa yegg mukk ci àdduna yaru nga baax nga kenn da yow ci mim réew mën mbëkk faal lay ñaanal ku la laal barke yombal xaamal ak bar ma ñaf koy mbëkk ba mu saw wasalaam